ginnaaw buñ jiitalee sant yàlla sunu boroom tabaraka wa taala julli ak sëlmal ci ngeen ji mbindéef alayhi wa yee salaat sunu jaayante ak sunu sëriñ a Seyxul Xadiim ñi ngi yëkkati nuyoo bi gën a tedd te gën a sell ci nuyoo yépp muy nuyoob lislaam di nuyoo jullit ak mbokkum jullitam te nuyoo boobu moo di asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu ci nuyoo boobu di ci tofal ay ziyaar yu kawe yu mag ak i ndokkeel nuyoo yooyu ak ziyaara yooyu nag ñu ngi koy tàmbalee ci kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo fi teew ci jotaay bi ak ci bis bi te sunu maam sëriñ bu sóobee bu soo nekk ci bopp bi doon xalifa sëriñ bu sóobee ak mbooleem kilifa yi fi teew yépp di njabootuk sëriñ bu sóobee ak njabootuk sëriñ Saal di jaare ci kilifa yooyu di nuyu ak a ziyaara sëriñu murit yëpp tey ci kaw suuf di a Seexu Muhammadinil Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba lii ay yéeneem ak i naalam ci lislaam ak liggéeyal sëriñ bi mottali ko ba naalaat yeneen ginnaaw nuyoo boobu ak ziyaar bi mbokk yi tey di alxamis ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rakkaati gàmmu ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent dëppook ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru décembre ci atum 2022 ñi ngi daje fii ci gox bu ñu naan Mbàkke ci pencum Mbusoobe ci jumaay Masalikul Jinaan daje fi ngir fàttaliku ak ngir ñaanal kilifa yu tedd kilifa yu baax di sunuy maam muy sëriñ bu soobe ak sëriñ saa ak seenu njaboot ñu doonoon ñoo xam ne seenu dundu lépp dañ koo jeexaloon ci jaamu yàlla ak jariñ mbindeef yi ba niñ fiy jógee moo taxoon seenu dund doon dund gu tedd doon dund gu barkeel doon dund gu fees dell ak i njariñ ba loolu moo waral sax sëriñ Mbàkke Buso di doomi sëriñ bu soobee ba yi di nga xam ne ci lay taarixale lenn ci mag ñi nga xam ne ñoo génn àdduna te tàmbale woon ko ci taarixal wuy jig boroomam way juram sëriñ bu soobe ba muy melal sëriñ bu soobe ci ak dundam daa wax ne ak dundam lu teddoon la lu barkeeloon la wax ne tuwufiyal waalidu ama subba shay an azza umruhu wa kunhu xay wa huwa al asaxu zuhru yowmi isnayni li zeydi lxijjati duna may ni wax ne waajur wi muy sëriñ bu soobe mi ngi génn àdduna ci atum 1312 wax ne bi muy génn àdduna boobu mi ngi am juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñaar am ñu ne juróom-ñaar fukki at ak juróom la waaye nee na juróom-ñaar fukki at ak juróom yi nag moo gën a wér nee na faatu gi doonoon ci bisub altine ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru tëbaski ci atum 1312 nga xam ne foofu li ñu ci yitteel rek mooy bi muy màndargal dunduk sëriñ Bousso bi ak di ko melal daa wax ne azza umruhu mooy ak dundam daa tedd ak dundam daa barkeel noonu mu demee ci sëriñ Bousso bi nag noonu la demee ci sëriñ saa noonu la demee ci mboolem seenu njaboot ak mboolem ñëw seen ginnaaw kon ñooñu ñu baax lañ ñu tedd lañ ñoo xam ne jar nañoo fàttaliku jar nañoo waxtaane jar nañ di dellu ci seen mboor waxtu wu nekk ngir man di leen roy waaye ngir man di xeeñtu seeni jeexit waaye nag fàttaliku googu ak ñaanal googu ñu koy defee ci mbakke gi Mbàkke Bawal di dëkk boo xam ne ku ko wax danga tudd maam maaram bi nga xam ne moom la suñ fàllu daan wax ne mooy àdd naanu njabootuk Mbàkke ak Mbusoobe waaye ku wax Mbàkke yi da nga wax sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu ndax fii la feeñe jamono fii la njëkk a gàmmoo waaye fii la taalife Masaalikul Jinaan waaye ku wax Mbàkke it faaw nga tudd Sëñ Busoobe mi nga xam ne moom lañuy fàttali fàttaliku tey ak Sëriñ Saa ndax Sëñ Busoobe ak dundam dafa lëkkaloo lool ak Mbàkke ndax ku ne xam ne ne fii la bàyyi ko woon dem Saalum wuy ji wooteb ma ba ba mu jógee Saalum itam fii ci Mbàkke la dellusiwaat sëriñ bu mag bi jox ko këram ga ne fële ca armeel ya mu nekk fi di dund Mbàkke ba nim làqoo ci atum 1895 kon bu ñuy fàttalikoo sëriñ bu soobee fii ci Mbàkke mooy ñu ngi koy fàttalikoo ci dëkk boo xam ne mën nañoo wax ne dëkkam la dëkk boo xam ne bàyyi na fi jeexit waaye dëkk boo xam ne itam dund na fi fàttaliku googu nag lu am solo la lool ngir ñaari mbir ba ca njëkk mooy fàttaliku ñu baax ñi day dugg ci buntub màggal lu yàlla warmaal wala waa màggal ñu yàlla warmaal te màggal ñu yàlla warmaal mooy ñu yàlla baaxal sellal leen loolu aw yiw lay jural ka koy def yiwu adduna ak yiwu alaxira suñu borom tabaraka wa taala nee na wa man yuazim xurumatillahi fa huwa xayrun lahu inda rabbihi waaye fàttaliku ñu baax ñi ak màggal leen itam leneen da amaat ci anam gi ñu koy defee fii mooy jokkuk mbokk gi ci am ndax ay mbokk yu bokk ay maam ak i baay ñooy daje bokk yendu saafu waxtaan gisante nemmi konte loolu ak bokk dana ci dund ak bokk dana ci dëgëre waaye ak xamante dana ci yokk loolu li lu am solo loo xam ne li Yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ci jokkuk mbokk wax ne képp koo xam ne bëgg nga ñaar fexeel ba fokk ba fonk say bokk am nañ yaakaar lool ci ne ñi ñëw ci bis bi ak ci xew-xew bi te jokk bokk tax leen a jug danañu am ñaar yooyu ñaar yooyu mooy gudd fan ak wërsëg wu ñaar yooyu moom foog naa ne ñëpp bëgg nañ man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi asarihi fal yasil rahima ah, niñ ko baaxoo defee nag saa su bis bi ñëwee mooy xew-xew bi ñaari wàll lay doon am na wàll goo xam ne dundal yaram yi la mooy lu jëm ci luy berndeel yaram yi ci lekk yaak naan yi loolu noppi nañ ci waaye am na geneen wàll goo xam ne it gu am solo la jëm ci dundal ruux yi ak xol yi day mel ne jotaay bii nag ci wàllu googu la jëm mooy dundal ruux yi ak xol yi ndax ci suba jàng nañ fi alxuraan ju bari yéena yool bi mag ñi ak maam ñi ñu agsi nag ci jotaay bi nga xam ne ci lañu war a tëjee insha allahu bis bi mooy jotaayu waxtaan woo xam ne waxtaanu laabirante lay doon waxtaanu njàngale lay doon waaye waxtaanu lislaam lay doon tomb waxtaan wi nag tey insha allahu mi ngi jëm ci maas maasuk jamono jii maanaam waa jamono seen diggante mag ñu baax ñi ñiy dund ci jamono muy maasug jamono ak mag ñu baax ñi fi nekkoon seetantal yi ñu war a def diggante doxinu maas gi ak mag ñu baax ñi fi nekkoon ak ay laaj yu ñuy laaj ndax maas gi seenu doxin dëppoo naag na mag ña daan doxe bu fekkee dëppoo nañ nañ lañu war a fexe ba yokk doxin woowu ba mu gën a jëm kanam ba mu gën a dund bu fekkee am na ci wàll yoo xam ne it ak dëppoo amu ci nan la ñuy fexe ba joyanti ko ba sunu doxin ak suñuy jikko lépp doon loo xam ne luy dëppoog jikko mag ñu baax ñu la ak seeni doxin loolu mooy incha allahu tomb waxtaan wi ren ñu fas yéene cee ànd ak euh, euh, boroom xam-xam bu mag di sëriñ Fallou Bousso Thierno di boroom xam-xam boo xam ne xam nañ ko ci dëkk bi xam nañ ko ci réew mi ci yënguy xam-xamam ak ci bëgg gum bëgg xam-xam ak jàng ak jàngale ba jamono ji ñuy waxee yéen nii mu ngi jiite jànguwaay bu mag fële ca cees muy école Sëriñ Mourtala ba nga xam ne moo nekk cees di fa def ay résultant ak ay ndam yoo xam ne bi ndam yu kawe kawe la yàlla ko suñu borom gën a yokk te gën koo dëgëral kon incha allahu moom lañ fa yéenee ànd ak moom tey ci waxtaan wi euh, kon duñ guddal dañ koy jox rek incha allah moom Serigne Fallou mu tàmbali waxtaan wi incha allahu. asalaamaaleykum. wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci nuyoo ci kilifa yi nekk ci jataay yi di nuyu itam wax dëgg njaboot ak maam Serigne Bousso bi yépp ak njaboot ak maam Saa Bousso di ñaan yàlla ñi leen ci toogal sunu borom may leen fan gudd ak wér ba ñu bëgg liggéey ci toolu lislaam ñu defee ko nañ ko bëgg ci tal ak kàttan ak wér tañ ànd ko ñoom di sant sëriñ xaadim ci ubbi gi di xam ne ne rek rek jataay bi noonu mu ko wax loolu rekk moo ko wund fàttaliku nit ñu baax ci ay ñaan ak di jéem roy seeni jégu ñuy wax nag ne waxtaan wi mi ngi jëm ci maas ak jamono ji seen diggante ak ña leen fi jiit woon lan leen moo leen boole ak doxin bi nan la war a mel ak i laaj nag ay ak i tontu yu jëm ci yooyu ñu koy deytaalee nag ci ne sunu boroom tabaraka wa taala dafa saxal ci alquran ci laaj ji njëkk ci suuratu nisa ne doomu aadama yépp ñoo bokk lenn cosaan ndax maam aadama mooy seen woy juuru góor maam xawa itam di seen way juru jigéen ya ayuha nnaasu taqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxida wa xalaqa minha zawjaha wa baxta minkuma rijaalan kasiran wa nisaa loola kon di tegtale ne doomu aadama yi ñoo bokk lenn cosaan mu waxaat ci laaye fukk ak ñett ci suratul xujuraat ne yéen nit ñi dama leen bind ci diggante góor ak jigéen def leen ngeen di ay xeet waaye la ma ci jublu ngeen mooy ngeen xamante ku nekk mën a ràññatle boppam ak ñeneen ña waaye bindewuma leen noonu ngir ngeen teqalikoo yaa ayuha nnaasu inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa wa jaalnaakum suuban wa qabaila li taarafu inna akramakum inda allahi atqaakum ñaari laaya moom la imaam ali ibnu abi taalib karamallahu wajhahu doon gën a leeral sëriñ bi di ñu ko nettali ci nahju qadaa il xaaj fa muy waxe ne annaasu min jihati tamsili akfaau abuhumoo aadamun wal ummu hawa u nee na doomu aadama yi boo dee xool seen cosaan ay nawle lañ ndaxte jenn maam ju góor lañ am muy aadama ak jenn maam ju jigéen muy xawa mu ne nag ñu bokk lenn cosaan nag sutaante du ca cosaan kon dañoo war a tolloo kon mu ne su fekkee gis nga aw nit yuy ndamoo askan lañuy ñuy ndamoo bariwul solo ndaxte ban la ak ndox fa in atayta bi faxrin min dawi xasabin yufaaxiruuna bihi fa tiinu wal maa ñu laaj ko kon lan moo wara a sutaalante nit ñi nag mu ne xanaa xam-xam ak jëfe xam-xam mal fadlu illa li ahli l ilmi alal huda liman istahda adillah kon ragal yàlla ci la nit di mën a rawe moroomam looloo tax nag sunu borom waxoon ne inna akramakum indallahi atqaakum loola itam moom la sëriñ bi radiyallahu anhu sara ci njëlbeen nag téeréem boobu di nax du xadaayil xaaj ndax daf doon wax saxaaba ya ak seen melokaan ya ak fañ yegg ci mbaax nuñ def ba yegg fa mu naan muhammadun wa alihi subbaaqi wa saxbihi alxaawiina fadla albaaqi nee na kooku mu tuddoon mooy yonente yàlla muhammad waaye fàttewut waa këram ak saxaabaam ya ñooñee nga xamante ni làq nañ ngëneelal yàlla may aji des mu mel ne dañ koo laaj ne ko ginnaaw ñoom ñoo nit ñi ñoo bokkoon lenn cosaan bi lu leen may kon ñu làq ngëneelal yàlla moo may aji des mu tàmbali di ko leeral ne fa asbatu nusxa bila shiqaaqi is malaku nufuusa bistirqaaq nee na dañoo doon laayante biir ku ci xam lu baax wax ko sa moroom ci lu dul juyoo ak ŋaayoo ngir ne dañoo yilifoon seen bakkan ya tàggat ko ba luñ ko sëf ci lu baax mu nangu ko yóbbu kon ñu xam ne kon gis lu baax tegtal ko sa mbokkam jullit ak di bañ a ŋaayoo ab xëccoo ak jihaat ak sa bakkan ba not ko ba loo ko teg ci lu baax mu nangu koo yenu bokk na ca melokaan ya tax ñoo ñooñee jiitu woon ak lan mu teg ca ne fa atlafu l amwaala bil infaaqi ila riyaa nnaasi wa nifaaqi nee na alal ya leen yàlla joxoon dañ ko doon sànq ci lu neex yàlla te jubluwoon ci woon njistal jubluwoon ci woon naafeq kon loolu itam koo dégg xam ne kon ca bokk na ca melokaan ya tax ñu raw ñoom ñoo ñëwee alal juñ masa am dañ koo nangoo dañ koy nangoo def ci yoonu yàlla te yàlla rekk tax ak lan mu ne wa wasiqun wa wasiqu binnaafici razaqi tawakkulan alayhi fi l arzaqi nee na dañoo wóoluwoon yàlla may aji jariñe tey aji wërsëgale te dañoo wéeru woon ci yàlla ngir xam ne moo yor seen wërsëg kon loolu itam nekk loo xamante ni bokk na ca melokaan ya taxoon ñoom ñooñee di saxaaba yi ñu jiitu woon rawoon am nga ngëneel yàlla doyloo guñ doyloo yàlla ak wakkiilu guñ wakkiilu woon ci moom kaanu ilal uxra dawin talaaqi iswaajahu darrata bi talaaqi nee dañoo dëgmaloon àllaaxira fase woon àdduna kon jiital àdduna ndekete kon du tax a jag ca la tax ñuy wax nit ku baax jiital àdduna du tax a jag kon wan ginnaaw àdduna te dëgmal àllaaxira bokk na ci melokaan ya taxoon ñoo ñooñee rawoon mu ne yeggoon nañ foo xamante ni njàqare du tax ñu bàyyi ndigalal yàlla waaye ak ñàkk itam du tax ñu bàyyi ndigalam ndax ñaar yooyu nag bari na lu mu fàbbee nit nekk ci njàqare ba tax nga sàggane ndigalal yàlla wala nga nekk ci ak ñàkk ba tax nga sàggane ndigalal yàlla nee na loola dalutoon saxaaba ya lam yatruku li dorin aw imlaaqi amran min al mudabbiril xalaaq waaye mu ne amoon nañ cofeel lool ci ndigali yàlla yi te koom-koomi marché yi daawul dox seen diggante ak ndigal ya bal tabatu fil amri bil aswaaqi lam yulhihim anhu gayna al aswaaqi waaye mu teg ca lu am solo nag ne noonee ñu doon mel ñoom ñëpp la leen ko may nag dañoo jiitaloon xam-xam ak jëfe xam-xam wa kasafu di junnatal afaaqi bil ilmi wal amali wal wifaaqi dañoo fexewoon ba lëndëm lëndëm yi nga xam ne réere ko fi andi woon ñu dindil ko seen bopp ci nangoo sàkku ji xam-xam waaye duñ cay waaye di ko jëfe waaye ñu tegaat ci lu am solo nag mooy nangoo dëppoo te bàyyi ŋaayoo ak mu ne akrim bihim min saadatin xuzaaqi xaazul xalaawata min almadaaqi ñooñaay gaa yu baax ya yu yiwe ya ñooy ñamos neexiitu gëm yàlla te mose ko te xame ko fañ ko war a xame ak fañ ko war a mose loolu la wax ne akrim bihim min saadatin xuddaaqi xaazul xalaawata min almadaaqi kon yooyu boo gisee ñu ko doon jiital ngir xam le ne ñooñee rawoon muy saxaaba ya la tax ñu raw dafa am fuñ tegoon seen tànk ci ay jikko waaye maas bu bëgg a àgg fañ àggoon itam da ngay teg tànk fañ tegoon seen tànk yooyee ñu teg ca xam ne ne baax ak baaxal baax ak baaxal sunu boroom jeglewu ko ku fi jiitu ci ay at waaye xañu ko itam koo xam ne dafa mujj a ñëw ci jamono maanaam waxtu wu nekk ak jamono ju nekk nit ñu baax mën nañ faa nekk donte ne ay gone lañ waaye nit ñu yées itam mën nañ faa nekk donte ne ay gone lañ waaye waxtu wu nekk itam nit ñu bon mën nañ fee nekk donte ne ay mag lañ waaye nit ñu baax mën nañ fee nekk doonte ay mag lañ loolu sëriñ bi yàgg nañ cee yee lool ci masaalikul jinaan maa nga doon wax naan bu yaakaar ne lu baax la ña fi nekkoon jiitu woon fii dem nañ yóbbaale ko déedéet nee na lu baax muy baax ak baaxal ak jag ak jagal doonu ne ñi fi nekkoon jiitu woon fii dañoo dem yóbbaale ko waaye ko jaar fañ jaaroon melawoo nañ melowoon lañ amoon danga ko am fala xassis fadla rabbin qad ala bisi taqaddumin faqat fa tëj xalaa nee na bul jagleel ngëneele yàlla yaakaar nag ne ñu fi jiitoon ci àdduna ñoom dem nañ yóbbaale nañ lu baax lépp déedéet nee na boo jàppee mbir yi noonu da ngay réer te ku la topp ci sa loolee da ko réeraaleel id rubbama uri fatan muwaxara maa xaaba amman qablahu wa asra nee na amaana nga gis ku mujj a ñëw ci àdduna ay atam néew lool sax waaye yàlla baaxe ko ci ngëneelam may ko won ko loo xamante ni ña ko fi jiitu woon amuñ ko woon te jafe woon nañ ci ñoom mu jox la ci misaal ne fa fa tallu xad yabdu amaamal wabli wal fadlu lil waabili laali talli nee na li ñu ma mësay bandaŋ mën naa njëkk a wàcc aw waame waaye ku nekk xam na ne lay saxal mbay ma dëgg-dëgg nag mooy waame wa waaye du ma mësay bandang ba te moo njëkk gi kon jiitu rek ci ay at njëkk a ñëw jamono taxul nag nga yóbbu lu baax lépp waaye nit mën naa ñëw ci jamono ji nga xamante ni moo mujj ba noppi itam raw ñu njëkk ña waaye loolu lépp nag ci ngëneel la yàlla rek la tege fala tanaasa xiina nazmi tazdari nassa xadiisu ummati kalmatari nee na di joxe misaal ci boppam moom sëriñ bi ne ci ñi mujjee ñëw ci jamono ji la waaye nag teewul nag nga war a xam ne yonent bi nee na woon ummati kal matar sama xeet wi mu ngi mel ne ab taw laa yudra awwaluhu xayrun am axiruhu nee na ab taw kenn xamut toq yu njëkk ya njëkk a wàcc moo saxal mbay ma wala toq ya mujj a moo saxal mbay ma kon daal danga war a gëm te xam ne lu baax moom ni mën a amee ci ñi fi jiitu woon ni la mën a amee itam ci ñi mujj ñëw waaye itam ab safaan itam ni mën a amee ci ñi fi jiitoon ni la mën a amee ci ñiy mujj ñëw ci jamono loolu sëriñ bi yeewoon nañ ci bu yàgg ci téere bi mu tuddee Masaalikul Jinaan loolu lépp nag ànd ak loolu yëpp tam war nañoo xamaale ci ne ku mage ci ay at ak ku mag ku màgg ba sax bi jaaw ci mbaax def leen di wormaal ku mage ci ay at ak ku màgg ci lu baax ba bi jaaw ca dañ laa digal nga warmaal leen weg leen loolu jotewut ak lee ñu doon wax lenn ndax abdullah ibn omar radiallahu anhuma wax na ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam te doon na guddi gént gis mu yor ab socc di socc moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na am ñaari waay yu ñëw ci moom kenn ka xale la kenn ka mag la nee na yonent bi ci boppam nee na socc ba ma doon soccoo ma wëlbati jox ko ka gën a néewi at ba ma fabee socc ba ma doon soccoo jox ko ka gën a néewi at bàyyi fa mag ma nee na ñu déey ma ne lu tax nga bàyyi fi mag mi nee na ma wëlbatiku nanguwaat socc bi ca xale ba jox ko mag ma loola nag la muy tegtale mooy mag itam nag dis koy warmaal bàyyi ko xel loolu la waxoon ne araani fil manaami atasawwaku bi siwaakin fa jaani rajulaani ahaduhuma akbaru min al fa naawaltu siwaaka al fa qiila li kubra fa dafa'tuhu ila al minhuma kon loolu dañ ci dégg ne mag itam nag koy warmaal dis koy wet abu muusa al ashari wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na bokk na ci màggal yàlla ngay wormaal boroom bi jaawu jullit boo xamante ni dafa jeexal ak ndawam ci lu baax nañ koy wormaal inna min ijlaalillahi taala ikraama di saybati lmuslimi wa xaamili alquran wa ikraami di sultaani almuqsit kon tam ku nekk mag ba bi jaaw te ak ndawam gépp mu jeexal ko ci lu neex yàlla moom itam ndekete lislaam jox na ko ab cër loolu itam boor naa bokk ci li nga xam ne nañ koy bàyyi xel kon buñ bëggee tënk tomb bu njëkk bi dañuy xam na ne mbindeef yëpp ñoo bokkoon lenn cosaan kon la nekkoon cosaan mooy waruñu woon a sutante andi nañu itam aaya yu firndeel loolu kon bu ñu sutantee lu ko waral moo di ne ci ragal yàlla ak tënku ci ndigal ak xam-xam ak jëfe xam-xam ku la ca raw raw na la waaye du ci juddu nag la ca toppaat ci li ñuy tënk loolu mooy am na ay melokaan yoo xamante ni su dajaloo ci nit ki wala mu dajaloo cig maas su dajaloo ci nit ki ñu boole ko ci ñu baax ña waaye su dajaloo ci maas itam ñu boole maas googee ca ñu baax ña ñetteel ba itam mooy ne baax ak baaxal ak jag ak jagal liñ ko jagleel ku fi jiitu ci ay at rek bàyyi fi ñi mujj ñëw ci ay at waaye itam duñ ko jagleel ki mujj ñëw ci ay at bàyyi ña fi jiitu woon war nañ itam war maal mag ak koo xamante ni ak ndawam daf koo jeexal ci lu neex yàlla ba bi jaaw fekk ko ca kon loolu lañuy tëje lu njëkk li muy liñ doon laytaale waxtaan wi nag ci ay tomb yu néew bëgg nañ cee waxtaanee ne ndigali yàlla yi sunu borom tabaraka wa taala digle ak yim tere ndax daf ko jëmale ci mbooloo yi wala daf ko jëmale ci benn benn yi ndax loolu suñ ci amee tontu danañ mën a xuus ci li indi waxtaan wi ñu nekk ñaareelu laaj bi mooy ndax sët yi sët yi danañ jariñu ci mbaax ak seeni baay ak seeni maam sët yi bu fekkee seeni baay baax na ak seeni maam baax na ndax loola amal na leen njariñ loolu ñaareelu laaj la ñetteelu laaj ba mooy ndax aw askan te nanguwoo jëf-jëf ju baax am na njariñ mooy ñetteelu laaj bi ñeenteelu laaj bi mooy ndax ñi mujj ñëw jamono dañuy gàddu bàkkaar yi ñi leen fi jiitu woon ak seeni ñaawteef ak seeni njuumte wala duñ ko gàddu juróomi laajeel ba mooy ndax am na ñi mujj a ñëw jamono am na warugar yuñ yoreel mag ñi leen fi jiitu woon juróom-benneel ba mooy tëj waxtaan wi mooy ndax nit ñu baax ñu nekk ci jamono amal na waa jamono njariñ lii daal ci gàttal moom lañ bëgg wax insha allahu taala bu ñu ko wax ji waxtu wi maye bu njëkk bi mooy ndax ndigali yàlla yi ci mbooloo mi mbooloo mi la jëm lañ koy sàkku ñu taxaw ci wala benn benn mbooloo mi la jëm loolu mooy laaj bu njëkk bi ndax ndigali yàlla yi sunu borom daf koo sant mbooloo yi rek nga xam ne ñoo ci war a taxaw waaye sëntu ko benn benn yi wala benn benn yi la ko sant doog di jàll ci mbooloo yi loolu nag luñ ciy wax lu nekk danay jéem a wut cëslaa yi ci alquranul karim sunu borom day ci laay fanweer ak juróom-ñett jàpp ñeent fukk ak juróom-ñaar ci suuratul mudassir ma nga fay wax ne kullu nafsin bima kasabat rahina illa asxaabal yamin fi jannatin yatasaaluun an ilmujrimin ma salakakum fi saqar qaalu lam naku min almusallin walam naku nutaimu almiskin wa kunna naquudu maa alxaaidin wa kunna nukaddibu bi yowmi ddin laay yooyu de mbokk yi li ñuy njëkk a tegtale mooy bakkan bu nekk yowee gàddu sa jëf bu dee lu baax nga defoon yow lañ koy laaj ëllëg su fekkee safaan ba nga defoon yow lañ ko laaj ëllëg moo tax nag mu ne ëllëg li fekk àq yooyu wàccut kenn ku nekk bakkan bu nekk la nga defoon yow lañ koy laaj ba mu des nag jullit yi nga xam ne ñu sellal lañ ña nga xam ne ëllëg ñooy wal waa ndax ñoo ña nga xamante ni dañoo libéré woon seeni bakkan bañ nekkee àdduna ba yàlla fay leen aj jana yoo xamante ni bañ fa nekkee nag lañ doon laaj waa sawara ne leen waa àjjana ñooy laaj waa sawara ne leen yéen waa sawara lu ngeen doon sàggan ba tàbbi sawara ndax jullit piir rek tàbbi àjjana moo war a gën a yomb ci moom dem sawara de jullit piir tàbbi aljanna moo war a gën a yomb ci moom dem sawara ndax ku la ne borom bi ak mbaaxam yegg na ci boo defee benn bu baax mu fay la ko fukk boo defee benn bu bon mu delloo la ko ku sàggan ba say benn benn ëpp say fukk-fukk ci càggante la kon nag ñooñee buñ nee lu ngeen doon sàggan ba tàbbi sawara ñoom waa sawara wala iyaasu billaahi ñuy seen tontu la ca njëkk mooy xaalu lam naku minal musallin mooy bañ nekkee àdduna xam nañ ne sunu borom diggaloon nañu ñu julli ñu lànk ba ñu julli te amuñu woon ngànt ñu ah loolu de kon moom doy na aw lay ci tàbbi sawara nag wala bi laa ak lan mu ne walam nako nut'imul miskin mooy bañ nekkee àdduna itam yàlla baaxe woon na ñu am aw ñam wu doy man caa dund dundal ci suñu njaboot ba noppi gis ñu nekk suñu wet aaja woo ko ñu lànk bañ leen caa jox ñu ne ah loolu day ñun ñu bàyyi wuñ ko xel waaye ndekete bokk na ca la waa sawara wax ne bokk na la leen tàbbal sawara ñu leen ak lan mu ne wa kunna naxuudu ma alxaidin bañ nekkee àdduna itam dañ daa wut vérifier dara lu ñu wax rek ñu gëm ko suñ nañu mbooloo sàngam day baaxuñ nga ne añooñu ah, koy baaxuñ foo déggee till rek rajax doo vérifier dara loolu nekk dinaa tax nit tàbbi sawara wala iyaasu billaah luñ la wax nga gëm ko te doo vérifier baaxul ak lan mu ne wa kunna nukaddibu bi yawmi diin bañ nekkee àdduna itam gëmuñ woon ne bis penc bii dana ñëw xatta ataanal yaqiin ba dee fekk ñu loolu nag boo ko déggee kon mooy lañ njëkke woon rek mooy kullu nafsin bima kasabat rahina lañ doon layal mooy bakkan bu nekk la nga def muy lu baax yaa koy gàddul sa bopp la nga def muy lu bon tam yaa koy gàddul sa bopp muy laay bi njëkk bi yi ñuy tegtaloo ci loolu bu ñaareel bi sunu borom mi ngi wax ca laay fanweer ak ñeent jàpp fanweer ak juróom-ñaar ca sóoratu abasa nee na ëllëg bis penc day nit ku jagut dana daw mbokkam seen ko wëqati ku daw daw yaayam daw baayam daw soxnaam daw ak njabootam lu tax mu ne li kulli mri'in minhum yawma isin sa nu yox nii nee na bis boobee ku nekk am na aw sasam loo xam ne doy na ko sëkk walis muy lijjanti leneen kon loolu itam dafay tegtale ne nit ku nekk la nga jëf yaa ko jëfal sa bopp bu baaxee baax na su dee safaan ba itam wane yaasu billah ñetteelu aaya ba sunu borom mi ngi ko wax ci téeméer ak juróom ya ayuha alladina amanu alaykum anfusakum laa yadurrukum man dalla iza htadaytum ila allahi marji'ukum fa yunabbiukum bima kuntum taamaluun fii sunu borom dafa wax ne na ngeen di farlu ci baaxal seen bopp ak fexe bay tege ci siraatal mustaqim ndax su fekkee fexe ngeen ba baaxal seen bopp keneen ku sàggan ba baaxut loraange ja bu wàccee ca kooka lay dal waaye du dal seen kaw laa yadurukum man dalla iza htadaytum waaye kookee baaxut loraa nga ja ca boppam lay dal waaye yow sa yoon nekku ca loolu nag tegtalewul ne jullit dafa war na yàccaaral rek bu gisee lu baax du ko digle bu gisee safaan ba itam du ko tere en ah, jullit su gisee lu baax na koy digle su gisee ab safaan itam na koy tere ndaxte bala ngay jub dëgg dëgg danga da boole loola mooy da nga cay boole soo gisee lu baax di ko digle soo gisee safaan ba itam di koy tere ñeenteel laay ba sunu borom mu ngi ko wax ci suuratu maryama laay juróom ñeent fukk ak juróom wa kulluhum aatihi yawmal qiyaamati farda nee na bis pénc ay doom man na faa bañ a jariñ alal man na faa bañ a jariñ ay àndandoo man na faa jariñ ku nekk sa jëf moom lañ lay fay bu dee lu baax ñu fay la ko bu dee safaan ba itam ñu fay la ko juróomeelu aaya ba ci sóoratu baqara laaya téeméer ak euh, ñeent fukk ak benn tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna ma kaanu yamaluun tilka jooju dafay junju xeetu yonent yàlla ibrahim ak ismail ak ishaq ak yaqub ak asbaat ya ñooñu la sunu borom doon xamal ahlul kitaab ne bu ngeen continuer ci seen moy gii ak seen wedd gii ngir sukkandiku ne suñuy bàyyi ay yónnent lañ woon loola du leen amal njëriñ ndax ñooñee lañ doon jëf seen bopp lañ ko doon jëfal yéen itam li ngeen di jëf seen bopp ngeen koy jëfal juróom-benneel ba ci aay yi saxal ci ne ku nekk la nga jëf yaa ko jëfal sa bopp mooy man amila saalihan fa li nafsi wa man asaa fa alayha ku jëf lu baax boppam la ko jëfal ku jëf safaan ba itam ca kawam rek lay dal kon foofu itam bu ñu ko bëggee tëj dañuy xam ne ne ndigal yi ak tere yi ku ci nekk sa bopp nga koy defal su baaxee yow la baaxal su safaan ba ñëwee itam yow la dal ci sa kaw waaye kenn mënu cee wuutu kenn ak maas mënu cee wuus wuutu geneen maas itam laaju ñaareel ba mooy ndax sët yi ndax sët yi danañ jariñu ci mbaax ak seeni baay wala seeni maam loolu lañ ci njëkk a waxe mooy waaw sët yi mën nañoo jariñu ci seen mbaax ak seeni maam ak seeni baay waaye kañ mooy isa saaru ala minhaji salafihim saalih waqtadaw bihi mooy su fekkee nangu nañu fa seen maam yu baax ya tegoon seen tànk ak seen baay ya bu ñu ca tegee seen tànk danañ jariñu ci seen mbaax ak baay yooyee ak seen baax ak maam yooyu loolu nag message yi laa ci bëgg a joxe mbaax ak wayjur dana taxawu doom laa ci njëkke mbaax ak wayjur dana taxawu doom taxawu nag laa wax dana taxawu doom sunu borom mi ngi koy nett li ci suratul kahfi ci wa amal jidaaru ba aaya jeex ndax dañoo wax ñu tënk suratul kahfi aaya juróom-ñett fukk ak ñaar wa amal jidaaru fa kaane li xulaamay ni loola ay jirim lañ woon ñu nekkoon ci dëkk Muusa ak al abdu fekk fa miir bu daanu ci seenam koom-koom ñu jàppale leen ba yëkkati miir boobee bañ bañ leen laajee lu tax ngeen def lii dañ ne wa kaana abuhuma saaliha seen baay daa baaxoon seen baay daa baaxoon kon ndekete kon mbaa mën naa taxaw doom ba ca sët nag loolu mooy misaal bi ci njëkk ñaareel bi misaal bi mooy laaye ñaar fukk ak benn ci suuratu Tuur sunu borom ma ngi koy wax ne walladina amanu wattabaathum durriyatuhum bi imaanin alxaqna bihim durriyatihim wa ma alatnahum min amalihim min say wa lumri im bima kasaba rahim sunu borom dafay wax ngëneelam ak mbaaxam nee na ëllëg nit ñu baax ñi buñ tàbbee aljanna te bàyyi fi njaboot goo xamante ni tàbbi nañ aljana waaye nag seen jëf kawewutoon ba yegg fa seen maam ya yeggoon nee na ci baax ak yàlla day fob sët yooyee nga xam ne seen jëf matutoon mu yéega ba yéegal leen fa seen jëf yu baay ak seen jëf yu maam yu baax ya nekkoon loolu itam kon nag mën naa bàyyi xel ci nekkoon ba tey baax ngir sowee sa say sët ak say doom baax na moo tax ibnu abbas radiallahu anhuma wax ne inna allaha la yarfau zurriyata almumini fi darajatihi wa in kaanu duunahu fi lamali li taqarra bihim aynu yàlla ci mbaaxam dana yëkkati sëti nit ku baax ba yeggal leen ci daraja joo xamante ni yegguñ fa woon ci seen jëf ngir seen maam ju baax ngir mën a seral xolu seen wayjur yooyee loolu itam kon dana tegtale ne mbaax ak baay ak mbaax ak maam nag mën naa taxaw doom waaye Ibnu Abbas teg ca na ne set ya nga xam ne ñoo la ñuy yéege foofee nag mooy set ya fekkoon seen baay ak seen maam ya ci gëm yàlla waaye sët boo xam ne yéefar la nag fa baay baak maam ja tegoon tànkam tegu fa tànkam waaye dafa mooy yàlla weddi ko kooku taxul ñu waxoon kon foofu itam bu ñu ko bëggee tëj dañuy wax ne sët yi mën nañoo jariñu ci mbaax ak seeni wayjur ak seeni maam waaye bi sart ñu jaar nag ñu nag jéem jaar fa nga xamante ni fa la seen imaam da seen baay jaaroon ñetteelu laaj ba mooy ndax aw askan rekk des na te sukkandiku ba doo jëf baax loolu de buñ duggee ci alquraanul karim itam danañ fa fekke fu fa sunu borom teqalee diggante baay ak doom ngir ne baay ba dafa baax doom ja weddi mu tàbbal doom ja sawara bàyyi doom ja aljana ci alxuraan tam dinañ fekk foo xamante ni diggante soxna ak boroom këram soxna sa baaxut boroom kër ba baax mu tàbbal boroom kër ga aljanna bàyyi soxna sa sawara loolu itam mi ngi ci alxuraan alxuraan tam nañ fekk foo xamante ni doom a baax bàyyi baaxut mu tàbbal bàyyi sawara tàbbal doom aljanna yooyu yëpp nag ci gàttal ku ci bëggulu ko leer day dellu ci wanaa daa nuux rabbahu fa qaal rabbi inna bni min ahli ak qaala yaa nuux innahu laysa min ahlik innahu amalun ku bëgg a xam ci diggante itam soxna su soo xamante ni dafa weddi yàlla te boroom kër ba gëm yàlla te sunu borom teqal leen seeni kër ci ëllëg wa daraballaahu masan lillazina kafaru imraata nooxin nga ca nag wa daraballaahu la kon ñu xam ne kon foofu itam buñ ko bëggee tëj dañuy wax ne dañuy wax ne euh, askanoo ci ay ba baay ak i maam yu baax dañ koy jàppee départ départ laa koy mën a tuddee départ dañ koy jàppee départ bu am doole boo xamante ni bu ko nit ki bu ko nit ki jëlee def ko occasion man naa gën a baax départ la loolu nañ ko bàyyi xel départ la waaye diisu ca yam nag ndax kuñ puus puus tàkkoo itam dañ la fi ba kuñ puus ku say wayjur def lu baax ak say maam def lu baax nga waroon def loolu occasion ñu puus puus la puus la demoo dañ la fay bàyyee ànd ak ña mën a dem naka noonu yi sëriñ Moutara moom sëriñ Fàddilu yónnee na fi sëriñ Siidi moom sëriñ Abdul Xaadir ñëwoon na fi boppam sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Soy bu naka jekk niñ daan ànd baaxoo ànd ak ñun ci bis bi yónnee na fi ay teraangaam yu am solo ak i ñaan ba noppi ne mi ngi koy ànd ak ñun saa su nekk ci bis bi te it wax na ne dem na ba démb ci guddi ba dem siyaara ji barabu sëriñ bu soobe ni mu ko baaxoo defee ci at jot kon ñu la koy tàttu loolu sëriñ bi sëriñ Galas Kaltoom Mbakke moom Cheikh Alhaji Baara moom sa fàddu naka jekk taxawaayam ci bis bi rafet na na mu ko doon defee la ko defee ay teraanga yu am solo ak i naan ak lépp loo xam ne nii war naa jagal bis bi moom la fi yónnee démb yónni ko sëriñ Fallou Bousso mu andi ko ci turu mbooloo bi kon sëriñ a sëriñ Cheikh Abdou Mbacke Darou Salaam moom it ñëw na fi ak mboolem kilifa yi fi ñëw yëpp mbokk yi nekk ci Mbacke Mbacke xewar ak mbokki mbusoobe ak mbokki aafe ñëpp teew nañ fi xëy na lim bi day gën a gudd waaye ñu bëri bëri bindoon nañ leen waaye a gudd moo tax duñ ko mën waaye ñi ngi sant bu baax a baax it sëriñ Amdi xalifa sëriñ Omar ndax barki démb ci samedi bi passé insha moom lañ doon def table ronde bi nga xam ne fu lañ ko doon def ngir waajtaayee ko màggal gi taxawaay bu am solo la ci taxaw ak mbooloo mi yëpp ñu ngi leen sant bu baax te di ko ñaanal suñ borom mu yàgg ko fi ànd ko wér na ko noonu it la bàyyee yitteem yëpp ñëw ànd ak ñun ci turu ci ci jotaay bi ànd koog sëriñ bi ko daan baax ko defee kon sëriñ ñu ak wéram ba li mu liggéeyal maamam sëriñ Bousso yëpp ko ànd koog kilifa yëpp kon lay sant bu baax moom de saa yu gersoo gis ko mu gën ñoo ñemeloo ak mboolem kilifa yëpp sëriñ bi ñu lay seereel taxawaay yu sëriñ Abo Sall moom it ay taxawaay yu am solo taxaw na ko ci liggéey bi ci ni mu ko baaxoo defee at mu jot kon ak yeneen mbokki taaliba yi fi nekk yëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ci liggéey bi ñu leen di sant baax waaye nekk noonu daayira sët yi nga xam ne ñoom lay taxawal bis bi nga xam ne ñoom lañu liggéeyal seen maam ñoom ñëpp yabal nañ ay délégation indaale seen i addiye waa kër soxna Awa Bousso ci njiital sëñ Alhaaji Mamadou Mamoun Ñang sëriñ Xaadim Ñang ak sëñ ñëw nañ fi ci suba ànd ak ñoom andi seen i addiye waa kër sëriñ Mor soxna Bousso ci njiital sëñ nga xam ne mooy président mbooloo mi ñoom it andi nañ fi waa kër sëriñ Massamba Faty Bousso ci njiital sëriñ Jiili Bousso Abdoul Aziz ak waa kër soxna Xari Fañal ñoom indi nañ fi ñoom ñëpp indi ñaari kër yi waa kër yooyu yëpp wane na bis bi seenu bis la ñoom luñ ci def la ne ñoom lañ ko waroon defal kon sëñ bi ñu la koy seeral bu baax waa kër sëriñ Omar Fañal ci njiital sëriñ Bàcci Bousso ñoom it indi nañ fi seen addiyee waa kër sëriñ Ceerno Bousso bindu soxna Xari Ñal moom it indi fi seen addiyee waa kër ak soxna Roqee Bousso ñoom it ñëw nañu fi ànd ak ñun ci bis bi indi fi seen addiyee ñu la koy seeral bu baax a baax waa kër Serigne Moussa Bousso ci njiital Serigne Bousso ñoom it ënd nañ fi seen addiya waa kër Soxna Anta Bale Bousso ci njiital Serigne Mbacke Yónni moom it ënd nañ fi seen addiya fondation Diarabatoul Marafik waa kër Serigne Afia Bousso njiital ñoom it ñëw nañ fi andi fi seen addiya waa kër Serigne Baara Bousso moom Serigne Sarr ñoom it ënd nañ fi seen addiya baax waa kër Serigne Omar Bousso ci njiital Soxna Nday Bousso Serigne bi ñu ngi lay seeral ne naka jekk ñoom soxna Ndey Buso ak ñi mu ko àndal ak magam yi ak kilifaam yi nga xam ne ñoo ko jiitu woon ñoom ñëpp taxawaay bu am solo naka jekk nañ ko daan defe ànd ko ci mbooloo mi noonu lañ ko defe it ñu ngi leen di sant baax di ko seeral seen kilifa sëriñ yi ñëwaat xam ñun ñoo ko bokk kon waa ñoom it euh, ñoom it fi indi seen i bu baax baax waaye waa kër sëriñ Seexu Buso bi nga xam ne mooy mag ci njabootu Serigne Mbusoobe Serigne Saliou Mbusoobe Cheikh bu loolu jiitu ko ak mboolem ñi fi nekk ñoom it indi nañ fi seen adde yu am solo ànd ak ñun ci liggéey bi naka jekk nuñ ko baaxoo defee ñoom ñi nekk fii ca féete fii ñoom ñëpp ñu ànd ak ñoom ci liggéey bi sëriñ bi ñu ngi lay koy seeral bu baax a baax ba indi nañ seen adde ñi ngi sant mboolem daayira sër yi nga xam ne ñëw nañ fi ak ñi amoon yéene ñëw ci indi seen adde xam naa waxtu yi moo gàtt waaye ñi ngi sant bu baax waa koñ bi fii di Mbàkke di sant bu baax soxna aji Bousso moom sëñ Abdou Salam ak sëriñ Massamba Bousso ak mboolem ñu dëkk ci koñ bi yëpp naka jekk seen taxawaay ci bis bi rafet na ak mboolem daayira yi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey bi ci ànd jox soxna aji Buso ba defal xéwal yi ba mat sëkk ak mboolem mbokki taalibi yëpp sëriñ Jili Mbàkke moom sëriñ Ismaïla moom it teew na fi ànd ak sëriñ Cheikh Ismaïla xalifa borom moom Ismaïla moom xalifa borom yëpp kon suñu laaj yi ne kaddu gi dañ ko yóbbaale kaddu gi kaddu yi cant la rek yëpp sant daayira sët sant mbokk yi sant taalibe yi sant xarit yi sant wóllër ñoom ñëpp

sëriñ bi mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mu ne mbokki jullit yi mbokki taalib yi fi teew. ñu ngi jiital ci nuyoo bi. sëriñ Touba Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké. Mouhamadou Mountakha Mbacké. di ko siyaare di ko ñaanal. di ko siyaare di ko ñaanal. tey fedd li suñu njëbbal ci moom. tey fedd li suñu njëbbal ci moom. ndax moo fi sëriñ Touba fi nekkal sëriñ Bousso bi tey di sëriñ Bousso bi. ki fi nekkal sëriñ Bousso bi tey di sëriñ Bousso bi Bousso mi. sëriñ Bousso bi Bousso. mooy sëriñ Bousso bi Bousso. moom it ñoo ngi koy ñaanal. moom it ñu ngi koy ñaanal bu baax. mu yàgg fi lool. moo ko sëriñ Mountakha. ànd ak wér ak tal. ànd ak wér ak tal. noonu nag ci la ma sëriñ Bousso bi Bousso. ci noonu la ko sëriñ Bousso bi Bousso. ñu fi nekkal sëriñ Bousso bi. ñu fi nekkal sëriñ Bousso bi. mooy sunu mooy sunu lépp mooy sunu mooy sunu mooy nga xam ne mooy suñu suñu sëriñ bu soobee. ak mboolem doom bi yëpp. ñoo ko koy xoolee. ci loolu nag bi ma joxee ndigal ne naa wax. ci loolu bi ma joxee ndigal ne naa wax. ci kàddoom ci moo waral moo waral muy jox rakkam. sëriñ bu soobee bu soobee. moom sëriñ Omar bu soobee. mu ne lu bari xew-xew yi dama ko fekk mu ne ren yàlla taw fexe taw fexelu ko mu fekke ko moom it moo tax mu joxaat ko ndigal mu jàllale ndigalu sëñ bi li kàddu yi suñu xalifa bi yu bàyyi ko ci suñu xalifa bi nekkal fi maam sëriñ Bousobe ak maam Saa Bousobe di sëriñ Bousobe Bousobe ñu koy ñaanal fan gudd lool ñu koy ñaanal fan gudd lool waaw na ko wér. di nuyu maam Serigne Touba. di nuyu maam Serigne Touba. sëñ Mouhamadul Mountakha. xalifa général des Mourides ñu ko fi nekkal. di ko ñaanal fan wu gudd lool. mu ànd ak wér. sëriñ bi nag nee na. sëriñ bi nag ci ndigalal sëriñ bu soobee. mi yëpp. mi ngi nuyu mbokk yi yëpp. di leen sant bu baax a baax a baax. di leen sant bu baax a baax. di leen gërëm it bu baax. di gis taxawaay yi bu baax a baax. di gis taxawaay bu baax a baax. mu ne njaboot gii fi daje. mu ne njaboot gii fi daje. njabootu maam Serigne Bousso bi la. ak njabootu maam Saa Bousso. ñu ngi nuyu ñëpp. di leen jaajëfal. mu ne taxawaay yi rafet na lool. di leen ñaanal itam. fa ngeen fi taxaw ren. bu déwénee ngeen romb ko. sëriñ Fallou mi nga xam ne mooy sëriñ Alaaji Ñanga mi ngi nuyu baax sëriñ Alaaji Ñanga mi nga xam ne mooy jiitul mbooloo mi ak ñi boot ñëpp ak ñi boot ñëpp rek ak ñi jàpp ci liggéey bi yëpp ak jàpp ci liggéey bi yëpp ne taxawaay yi ñu ngi koy gis bu baax ne taxawaay yi ñu ngi koy gis bu baax di gërëm nag rakkam ji nga xam ne. di gërëm nag rakkam ji nga xam ne. sëriñ Amdi Moustapha Bousso. tam jox ko kàddu. tam jox ko kàddoom. taxawaay rafet yi nga xam ne. taxawaay yu rafet yi nga xam ne. taxawoon na ko. taxawoon na ko. ci waajtaay yi ci te àndoon ko yéen. te àndoon mbooloom yëpp. keroog bee. ci gaawu bi weesu. fii ci kër sëriñ Omar Bousso. fii ci kër sëriñ Omar Bousso. sëriñ mi ngi koy rafetlu bu baax a baax. di leen ñaanal bu baax di leen ñaanal bu baax sëriñ borom dool leen tawfeex sëriñ borom dool leen te njàppanal mbir yëpp sëriñ bi dafa wax ne. sëriñ bi ne. am xam ne. am na barab boo xam ne. da koo nisar fii. ci maanaam mu nekk këru maam sëriñ bu soobee. mu nekk këru daaray maam sëriñ bu soobee. nee na nag yi. ñu ngi ci waajtaay yi. yàlla. bu soobee yàlla. dana jàpp ay leetar. dana jàpp ay leetar ak ndaw. ak i ndaw ak i ndaw. jëmee ko ci mboolem njaboot gi. jëmee ko ci mboolem njaboot gi yëpp. su boobaa koo ci jot. su boobaa koo ci agsi ci yow. da xam ne. da xam ne. lii moom la digle. lii moom ndigalam la. ca bëgg rek. ñu taxaw ci ba def ko ni ñu ko bëggee lii daal la sëñ bi waxoon ci waxtu wu xat wi nee ni ngi sant ñëpp di sant sëriñ Baara mi nga xam ne di sant sëriñ mi nga xam ne moo fi jiite njabootu maam Saabousso mi nga xam ne mooy jiite njabootu maam sëriñ Saabousso yëpp di ko ñaanal fan wu gudd bu ànd ak wér di ñaanal mbooloo mi yëpp di ñaanal mbooloo mi yëpp sëriñ bi waxoon ne sëriñ bi jox na ko ndigal bi na ko ndigal mu jàllale kàddu yi mu ngeen jëf yàlla nañ ko teewee nag déwén ci barke Seexul Xadim jërë ngeen jëf macha allah jërëjëf kon loolu rek la sëriñ bi wax mi ngi xamal ne incha allah sumb bi nga xam ne sumboon nañ ko waxoon ne bu barab bi àggee ñu def ko moom la sëriñ bi doon wax muy daaree sëriñ bu soobee ca barab yi ñu joxoon ñu ko fii ci wetu armée yi incha allah sëriñ bi mu ne ay diir bu gàtt yi ñëw dana yabal ay ndaw yoo xam ne njublu ci liggéey bi ngir ñu waxtaane ko ngir xool nañ koy tàmbalee kon loolu ndigal loolu incha allah ñu ngi koy xaar fàttaliku sëriñ bi nee na ñoo ngi fàttaliku sëriñ Abdou Salam mu njëkk a nekk xalifu sëriñ bi sëriñ suñ Bousso njëkk a nekk xalifu sëriñ Bousso bi ay sëriñ te mat ci sëkk te mat ci sëkk ba ab liggéeyam jeex ba ab liggéeyam jeex sëriñ Ibrahima Bousso sëriñ Ibrahima Bousso moom sëriñ Massamba Fati moom sëriñ Massamba Fati wóotu wóotu ko moom it kemtalaayal kattanam. moom it dem def ci kemtalaay kattanam. liggéeyam jeex. ba ab liggéeyam jeex. sëñ Thierno. sëñ Thierno Bousso. sëñ Thierno Astawaalo. sëñ Thierno Astawaalo. moom itam. moom itam. jokk lool. jokk lool. yaatal lool. ja def ci lool. waaw yaatal mbir mi lool yaatal mbir mi ñooñu itam kon mënuñu fàtte. nee ñooñu it mënuñu leen fàtte. ñu leen ñaanal. mënuñ leen ñaanal. yàlla dool leen leer fañ nekk. yàlla dool leen leer fañ nekk. barke sëñ Bousso bi barke sëñ Bousso bi mi ñu doon mi ñu mi ñu doon liggéeyal mi ñu doon liggéeyal barke Cheikh Amadou Khadim barke Cheikh Amadou Khadim ak mboolem njabootu sëñ Bousso bi ak mboolem njabootu sëñ Bousso bi ak mboolem njabootu Cheikh Amadou Khadim ak mboolem njabootu Cheikh ak mboolem njabootu eh, Mamor Diarra ak mboolem njabootu Mamor Diarra ak mboolem njabootu mam mam mam eh, sëñ Mor Anta Sali ak mboolem njabootu sëñ Mor Anta Sali bu ne bu tuddee ñooñu tabal nañ tabal nañ ci des ñëpp Mbuso beeg Mbàkke ñaan yàlla rek ñaan yàlla ñu yàgg ñu yàgg lool waaye nañ farlu nag waaye ñu farlu nee na jàppaat bu baax rek te bu baax benn bi gën a rëy suñu benn bis suñu bis bi bis suñu Bousso bi bisum suñu Bousso bi sëñ ak sëñ Saa Bousso sëñ Bousso ak sëñ Saa Bousso ñooy suñu lépp la loo am mu ne boo amee boo ko amee boo sàggane bu ko jàpp ci ma ko jàppan danga koy jàpp jàpp bu dëgër ca bañ a jàpp wax ca bañ a jàpp ak i wax rek ci jëf jëf joo xam ne dana fang. jëf joo xam ne dana fang. ku ko jëfit nag. ku ko jëf sëñ bi dana fang. sëñ bi sëñ bi nee dana fang. asalaamaaleykum wa rahmatullah kon ñu ngi tàllal sëriñ bi ñaan su ko defee ñun ñëpp ñu maase àndandoo jëm ci barab ba siyaare sëriñ sëriñ Bousso bi ak sëriñ sax euh, ak njaboot ga fa nekk ak Mamour Diarra ñaan yàlla ñu teew ay déwén ay déwén déwén sëriñ bi kon na ñu ñëpp maase tàllal ñaan amiin amiin amiin آمين آمين آمين آمين